su waxee rek njëriñ la waaye soo waxee rek li nga xam ne mooy njëriñ Sénégal la mais dañoo gis euh, suñ Moodu xale yi jël yi nga xam ne mooy gaal gi nañ ñëw ak ki nga xam ne toog ñu ne mu ne wasifa benn mënu ma sax wax turam mais dama dama ko gis mu ne wasifa baaxul léegi ana lan ngay tontu si lool en tant que tàggat naa Mohamed xam nga Omar Sall ci ñi koy déglu euh, jàng na xadis bu ñu yeneen ci bi di wax nii atrukul zulma fa inna zulma zulmatil yawmal xiyaam bàyyi leen tooñ ndax tooñ ay tooñ la ko yàlla di def keroog yawmal xiyaam yow ahlu sunna wal jamaa nga bokk ah waxal ci ahlu sunna wal jamaa te bul bul bul bul bul bul laal yi fi yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam mais jàng kul yàlla kaafiruuna tekki nga ko yéey waxal yéeféer yi laa abudu bu jaamu maa taabudun la ngay jaamu wala antum ñoom nañ jaamu ci la ñuy jaamu wala ana abidun maa abantum wala antum abiduna maa abud lakum diinukum wala diini mais kenn ku nekk mais yow yow ahlu sunna wal jamaa boo nga bokk waxal ci xam man ñoom dama leen a xam parce que tuñ toll ñu ngi jël sëñ Abdou Rafaïlu defe ni sëñ Abdou Rafaïlu dafa am wuute ak yeneen mbàkke mbàkke yi yi nekk biir Touba wala dafa am wuute ak sëñ Mountakha comprendre lu xew sëñ Abdou Rafaaylu moo gën a gëm sëñ tubaa kuy gëm sëñ tubaa bu séenee ay magam day simbi mbaxanaam bu séenee ay magam day raam bu séenee ay magam day daw day day bu séenee sëñ Muntaxaa tànke day day raam dem ba ca moom jox ko addiya waaye da gis ñu jël dagg ay waxi sëñ Abdou Rafaaylu léegi ñoom ñëpp ñu ne non sëñ Abdou Rafaaylu bokkul ak ñee bokk bokkul ak ñee sëñ Abdou Rafaaylu sëñ Muntaxaa mi day kilifaam di léppam xam nga léegi bu ñu jógee ca loola ca ca ca ca ca ca ndax tooñ baaxul naan ay ay ay tey jii ñooñu di di di di wasifa allah allah wala laa ilaha illa allah yàlla la ñuy tudd ah mais di tudd yàlla di sikar mais sunu borom da ko da ko da ko da ko wax ci alquran kon nag loolu dafa am solo ah fazik fazakir innama anta muzakir lool la yeneen bi waxoon yàlla yàlla wax yonent bi waaye lasta alayhim bi mu saytir ilaa man tawallaa kafar bul sonal sa bopp ci ki dëgër bopp ba pare mu dum ba pare weddi yow waxal ci li ngay wax yow waxa yow yow bu dee Oustaz Omar Sall waxal ci li ci ahlu sunna wal man ñoom dama gis tamit moom si bëri mu ne ah, nit ko nit ko faatu sax droit ñaanal ko ñoom ñoom yooyu lañ gëm xam nga ahlu sunna wal jamaa yow li nga gëm gëmat lool man mii di wax yow euh, euh, jàngee naa seen école bi ñuy wax euh, alfalaax ay ibaadu rahmaan la gën a bari xam comprendre baax na ma la waaye <laughs> man mii bi may def shahada ibtidaiya biñ ma bi ma bi ma ñaari tabaskeek ñaari korité wax feeñ foofu oustaz bi di ko expliquer sam benn waa classe Seydou Ndong mu ngi fii sax wax ni oustaz ñoom Mouhamed Camara nam nag bésu nangam lañ julli man ni ma ne barki Serigne Touba oustaz bi dafa yuuxu classe bi qultu astaghfirullah man tusriku billah qad xarama allahu alayhi aljanna anta kaafir nangam ak nangam est-ce que comprendre baax ma ñu dem woo waa idaara waa direction yëpp lañu woo pour man ma tuub tuub wax bi ma wax sëñ Tuubaa ma bàyyi ba ñoom ñëpp taxaw may leen yow mudir te keneen kii ñëpp yéen ñii ñëpp sëñ Tuubaa leen moom fi dunya wal axira ñu dàq ma dama leen a xam ñoom parce que ñoom yow yow mu ahlu sunna wal jamaa yow nee nga yow ci axlu sunna wal jamaa nga bokk mais waxal ca la ngay wax te bàyyi parce que dimension bi tarixa yi nekk xam nga yow miy jël escalier ak ki jël ascenseur mais mënu leen tolloo dimension man fi muy waxee moom Omar Sall comprendre naa ko dama koy xam dama koy ree mais ñi dañ ko dépassé est-ce comprendre baaxal ma la mais ñoom mënuñu comprendre loolu ñoom duñ ko comprendre ñoom fii ba suba duñu ko parce que dañuy wax dañoo ñëw ñu ne la non lii la yàlla wax lii la langam la yàlla mayee na leneen lu mu waxul ci alxuraan suñu borom maye na leneen lu mu waxul ci alxuraan am na ñetti xam-xam yi moo am loo xam ne sunu borom xam ak ak beneen bi mu xamal yonent bi ak boo xam ne mbooloo àdduna yëpp boo ko gëstu xam ko waaye yàlla maye na leneen lu mu waxul ci alxuraan waaw suñu borom nag moo yor fa alun li maa yurit tey jii ñoom ki gëm ki gëm ki gëm sëriñ tubaab mooy mënoo fexe ba gëmul sëñ bi bu asamaan gi doon wàcc sëñ tubaa la gëm ki gëm si daaj Malick mais mënoo wax ba gëmul Maodo ki gëm ni Baay mooy Rasulullaay mais munoo gëm ni ba moom gëmul nii Baay mooy ki nekk Màkka Medina est-ce que comprendre baax ma yow gëmoo ko yow doxalal ca li ngay doxal te maandu ci tarixa yooyu yooyu dafa am solo Sénégal boobu ba léegi mag ñaa ngi fi sunu bàyyi nekk fi jàmm jee fi am te jàmm jooju ca lañ war a sax ca lañ war a nekk c'est très important mais am na yenn wax yoo xam ne bu ñu koy wax rek maanaam dañuy andi dañuy andi même Cheikh Amadou Kara Mbacké Noreyni ni mës na mës na wax ni maa ngi koy dégg mu ne julli mënuma ko je je je peux am nu ko waxee gars yi di ko di maam ahlu sunna naan ku dul ku julli noo koy toppee fi fi fi fi Cheikh Amadou Kara Mbacké Noreyni di waxee ñoom ñu foofu julli kan moo ko julli ci yonent bi kan moo julli ci yonent julli ci yonent bi kan moo koy julli si yonent allahuma salli yàlla nga leen a julli yow julli woo de yàllaay julli sallallahu yàllaay julli sëñ Mbay si Abdou mës naa ko dégg muy wax ci ay waaraatam lu bari doxe koy wax ne kan moo mën julli ku ko wax ma la sama oto kan moo mën julli ñun dañuy def ni xamuñu ba xam ndax yàlla nangu na ko wala yàlla nangu ko mais am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi def loo xam ne moo raw sax li nangu julleeg lu kilo ak koor ak jaamu yàlla moo tax maam Cheikh Ibrahima Fall ñàkk julleem ak ñàkk kooram waaye ji koy dingat laa yërëm nit foofu al am solo yoo xam ne boo dee yow tàggkeetu yonent bi nga yow da war a am personnalité sa bopp te xam ne yow ki ngay way ki ngay way <laughs> kooku kooku xaatimul anbiyaay wa imaam kullu mursalin kooku teraangay àdduna yëpp ci moom la fekk baax teraangay ñi nga xam mag ñi fi nekkoon ñëpp doon way yonent bi moom la Sëñ Tuubaa ne fala taisu ibni abdillahi bil fudala innal kawaakiba yufiya sinimaaru lil mustafa xayri xalqillaahi man silatan la wujja nahuwa kullal war a xaalu suñ bàmba ne raamal waraa nay la fadrin musina loo mu ne ngëneel yëpp wal fadlu inda rasulillahi xaraaru cheikh na cheikh saadu la bi wuldu cheikh amadou fadal bun mamin taalibal xayaat diin muxtaar mulay aboubacar mulay araan mulay ajmalaan idris al kamil asan musanna asan al sibti ali abi talib mouhamad rasulullahi kenn du moom ndax innal mourada min ijaadu xalqi ijaadu ahmada li fat xirat yi ak kërëmoo mantu silloo xarra oo xayru mantu xilloo xabra alal marati bi suwud de saati tafadalun li saydi sadati nga dem waalo waalo boobu jóge gaaya sanc tiwaawoon Maodo ibn Ousmane bàyyi sëriñ Babacar Si Malik ñu ne ko kan mooy rasulullah mu ne wa innahu is aradallahu nasatana Maodo ne abana mi nuur yi mu ne nuur nuuran nabil alami bañ laajee Lamartine français ba dafa ne si la grandeur du dessein la petitessement l'immensité font les trois mesures du génie de l'homme mu ne Muhammad rasulullah xoolal Lamartine li mu wax plus qu'un la wax waaye moins qu'un kii osera véritablement comparer l'histoire moderne à Sayyidina Muhammad Nabi il est parmi les plus beaux parce que Rasulullah il était très beau xaatimul anbiyaa'i wa imaami kullu mursalin saydil kawnayni wa siqalayni wa xaramayni mooy taaha mooy yaasin mooy abdallah mooy mooy mooy mooy mooy nuura kenn du yonent bi sallallahu alayhi wa kooku nag mënoo koo am bi nga noppi am sayduna muhammad ba xam ne ñàkkoo dara dem di ñàkk fayda di wëri baas gàmm yi sax da gis ak màggal yi sax borom alal la ñuy wër man damay tàgg tàggkat yonent yoo xam dañ may woo ak kii ne ma sax foo ne di wëgi fii di toj fii nangam ak nangam parce que yooyu la ñuy ñoom yooyu yooyu la ñuy wër mais man damay liggéey maa ngi sant yàlla comprendre baax la ma moo tax kenn du ma ci yem kenn du ne damay dem këram di ko woyal yonent pour ma may Thierno yow ak Ousmane ma woyal leen yonent bi plaisir gi may am. moo gënoon ma di ko woyal kon woyal ñu bokk. waaw moo moo moo moo koy woyal koo xam ne xaalis la la la yor waaw kulu ma naa la yaa faanin waya bu xaaya neen laay lay la laaw wow bàkku doy na fa mbëre yaa fi mën xulu walla woo siduna muhammad كل من عليها فان ويبقى ينين لا إله إلا الله وو باكو دينا فمبنيا في من خلو الله سيدنا محمد lu waay jàpp na bee ko gën ala kulli farle ay farla laaw farla woo fër la waay fër la waay Abdalaay baayam Abdalaay Abdul Mutalib bun Haasim bun Abdul Manaaf bun Xusay bun Kilaab bun Murat bun Kaab bun Luway bun Xaalib bun Fir bun Maalik Aynabi bun Kinaanata Xusay mataak Mudrikataak Ilias mu dem ni sar ma addinaan Muhammad rasulullaay way leen way